Seydina Muhammad alayhi salaatu wa dafa am wàccuwaay boo xam ne moom la war a wàcc ci suñuy xol dafa am tam ay warugar yoo xam ne jullit bu ne ameel na ko ko war na ko koo jooxeel ndax yàlla moo ko santaane loolu nag nun nu ko nafar ci jamono yépp lan ko soxla waaye jenn jamono raw ci jamono jii nu toll ngir ay mbir yu bari te bokk na ci mbir yooya lëndëm gu tëriis nga xam ne moom la àdduna bi lëndëm léegi xam ngeen àdduna bi dafa lëndëm tëriis léegi te Sénégal kenn ëppaleetu leen ci lëndëm googee kenn ëppaleetulu ci lëndëm gi nga xam ne moom la àdduna bi lëndëm te gi dara waralu ko lu dul sori bu nu sori li sayyidna Muhammad andi sallallahu alayhi wa sallam kon du am solo lool bu nu dajaloo ci jàkka yi ci bis bi mu juddoo woon di ko tagg tagg ko baax na ci jamono yépp waaye di ko tagg ak naa dañuy màggal bis bi mu juddoo woon te li mu andi woon moom nu sori ko bu baax a baax googu màggalu guddoom du am solo te xam ngeen Sénégal li fi xew li fi xew ci ay njaaxum yu bare bare bari ak i musiba sax ci ay niveau yu bari ci ay couche sociale yu bari ci jamono yi ñu toll gis ngeen jullit ñi tàqalikoo gu réy gi ñu tàqalikoo ci ay ngir ay tariqa ay jamaaat ay jamiyaat gis ngeen càqalikoo googu ci biir am gu amaat ay sel ndaxte càqalikoo gi dafa jëkk a nekk diggante suufi ak salafiye ñii ay salafit lañu ñii ay suufi waaye ci biir salafit ak suufi itam dafa am ci biir yeneen xeeti càqalikoo ci biir sa suufi ñii de ay tijaan ñii da ay murit ñii da ay qaadir te ci biir tariqa yooyu sax dafa amaat ay sël am na ay sël yu mag ak yu ndaw ak nag ay njaaxum yu tàmbali léegi di juddu ay njaaxum yu tàmbali di juddu surtout ci biir tariqa yi njaaxum yoo xam ne jot na pour kilifay diine yi toog te waxtaani ko tariqa yi léegi dafa am ay sël yu ciy juddoo yoo xam ne sàmmoonteetuñu ak li borom tariqa bi jàngale woon tariqa bu mu ci doon nag xanaa askanu ci borom tariqa bi ba noppi nag wut sa selug bopp ci biir tariqa bi di wax ak di def loo xam ne borom tariqa bi daawu ko wax daawu ko def santaane wu ko àndu ci te mën naa am sax su ko yàlla delloosi woon ci jamono boo sàgganee boo amee ay noon yaa cee jiitu ba noppi nag nga di ko woote loolu lu mat bàyyi xel la te lu raglu la xam ngeen ne ci Sénégal rek ci la am ay wax nit ñoo xam ne dañoo wax ne ay jullit lañu te fab seen sëriñ teg ko palaasu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñenn dem ba teg ko palaasu sa yàlla ab sénégalais ñemee taxaw di wax ni ab sëriñam moo sàkk yàlla loolu baat la boo xam ne kéefar mus cee àgg ci li ma xam man ci humanité loo xam ne lii dañ koy tudde diine ak ay mbooloo yu ñuy tudde mboolooy diine mu ngoog te la cay xew ak li diine santaane mel na ndeyjoor ak càmmoñ montin teewul sunu borom yàlla mi ngi nuy woon boppam damay dellu gannaaw rekk ba ci weer yu néew yi paase bi nga xamee ne bii ruuj jot na ci senegal baykat yépp ruuj ruuj xolli seeni jiw di xaar taw suñu borom yàlla teel a ab taw mu taw mu taw ci biir weeru juin bi mu tawee ba tooy jullit ni ñu bari daal dem tàmbali di ji ji seeni jiw ñoom baykat yi bi ñu jiwee ba ñenn ñi xaw a buural ñenn ñi di waaj a tàmbali seen gerte bàq bi wow ñu toog di xaar pour mu tawaat asamaan si ne kër set tawaatu ñu toog ba yëg ni tool yi soxla nañu ndox waaw booba bi asamaan si bi nga xamee ni bii tawatul ñu xam ne tool yi soxla nañu ndox ñëpp jàq moo jaa nu nu def am na ci réew mi ñuy wax na dañuy wone yàlla waaw teewoon ñoo wax ak yàlla boo naa ñëw dañ koy gis ba di ko wone ndax ndox mën a wàcc am na ci réew ñu gis ne seeni sëriñ moo féete kaw yàlla teewoon bokk ñu dimbali nu ba ndox mi wàcc bokk ñu wax ak sëriñ waaye day ñun ñëpp li ñu gis mooy bi tool yi maralee ba maral Sénégal jullit ñépp ànd nañu jublu ci kenn muy yàlla mi sàkkoon asamaan suuf la ma gis de mooy dem ci jàkk yi ñii di jàng alquran ñii di istigfaar ñii di salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ñee julli nañu ay julli mbaaw waaye teewul suñu borom yàlla moom ne cell rek téye ndox mi jàpp naa ne jamono yi nga xamee ne tool yi Sénégal yi mar na bu baax a baax a baax bu fekkoon ne kuy wone yàlla am na ci biir Sénégal kuy gis yàlla ba di ko wone am na ci biir Sénégal kon bi tool yi maralee ba maral kooka dana gis ak yàlla ne ko tool yaa ngi yàqu bu fekkee ne bii nag ñun suñu sëriñ yi ñoo féete kaw yàlla sunu tool yi di yàqoo ku maral loolu tam xam ngeen ne du lu xel nangu booba suñu borom yàlla xay na mooy wax ak ñun xëy na yit muy ab yar ndax bu nu demee dama dama dem ba lu bokk ci nun di mànkil di jéem a mànkil sax laay wax di jéem a mànkil sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bay tudd maamam di ko tudda ab mbindaan wala yu mel noonu bay tudd yonent bi sallallahu alayhi wa ko tudde ab kaw-kaw wala yu noonu yooyu yëpp ak bàkkaar yu ko ëpp xëy na indi aw maral wu metti ci biir réew mi waaye kenn forcé wul indi ndox kenn forcé wul indi ndox ñun ñëpp dina wëlbatikuwaat doon ay jaam di julli di ñaan di jéggulu di saraxe booba ana yàlla ya ana yàlla ya booba ana sëriñ si sëriñ si ngi doon ñaan ba ñun ñëpp ñu xam ne yàlla kenn la laa ilaha illa huwa suñ yàlla ne tekk tekk joojee day metti na metti na ci tool yi waaye tekk ju am njëriñ la ci nga xam ne dinañ xalaat man day su fekkee ab sëriñ la jamono jooju su ma amoon loo xam ne su ma ko defee mu taw sama tool bee ci las du maral te dafa maral dëgg kon nag maag ñi sunuy tool maraloon dëndul yàlla jege wunu ko gisunu ko dunu lu dul ay jaamam te loolu dañ ko war na xam te di ko waxe te di ko doxe suñu yàlla na tekk ba mu soob ko ba ñëpp jàq bay bëgg xaddi genn guddi mu wàcce ndox mu baree baree bari moo xam ne Sénégal gépp a walangaan ndox mu bari moomu fu ko suñu borom yàlla dencoon ndox mi wàcc ci guddi googu tooyal Sénégal gépp ñaata liitari ndox la ñaata mètre cube la ci ndox fu mu jóge ñu xam ne yàlla rek kay yàlla loolu metti woon na ci ñun waaye dëgg-dëgg am na njëriñ ndax Sénégal fi mu toll ci lëndëm léegi dafa metti tàqalikoo gi metti sori gu sori لسيدنا محمد اندي وون صلى الله عليه وسلم اك نياك خام سيدنا محمد تيب كوفا مون اندي لول ليب بون خامن بلاص سيدنا محمد دان كوي فاب خامن مو فيتا كو مولم سيرين سي نك دان كو ورا تيك سي كو مولم سيرين سي سيت لي مو اندي نو كوكو مانا بولك لسب سيرين اندي باخنا بو ري داكاي جانغلا لولو موي ليغا خامن مو مانا nu jaar ci yoon wi yàlla tëral won ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu war caa ngànk bu dëgër loolu kese moo nu mën a may jàmmi adduna ak bu àllaaxira ñu ma dem aljanna yàlla nu yàlla may loolu waaye loolu xam ngeen ni manqué na fi lool te dara lu mën a yóbbu nit aljanna ni mu leen wóore ne bi nu nekkee ci biir maral wi amul kenn ku mën a indi ndox ku dul yàlla te loolu ñëpp seere nañ ko نون ووني بو الاخره امول كن كو يوب الجنه كودول يالا اك توبارم